بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله بورن سورة الأنبياء سارو ينتهي مكة لوكي لولو ñu bari ci mu fas mufassiroona yi wala nga ne ñoom ñépp loolu la ñu wax téeméeri aaya ngi ci saar wi ak fukki aaya ak ñaar tuddee nañ ko suratul ambiyaa yi ndax li ci yàllay nettali ay nettali muy xissa yi yonente yi nga xam ne dawe woon nañ saar wi mook saar yi wàccee màkk ñoo niroo lan la saar wi nar a wax saar wi dana saxal pas-pasu lislaam muy kennug yàlla mu saxal ko ci bakkani ñi doon sàkkal yàlla moroom saar wi dana gaarlu waxu mushrikoona yooyu le dana leen delloo ay tont yu leer dana leen xupp saar wi dana jéem a walbati gis-gisu doomu aadama be mu xool li yàlla bind ndax mu mën cee jëlee xalaat saar wi dana gaar gaarlu xissa yi yeneen yonente yoo xam ne dawe woon nañu saar wi ni mu tàmbalee mu di ak waar gu dëgër noona la bëgg jeexale saar wi waaye dana ci di ci saar wi balaa muy jeex benn mashhad ci mashahida yowm alqiyaama maanaa benn teewwaay ci bés bu naroon a ñëw saar wi loolu lay nettali bu fekkee ne gàttal nan ko li muy tàmbalee nag mushrikoone yi mooy ñey bokkaale ak ñooñu lay wax ak seen woote lañ doon wootee ne yàlla am na morom ñooñu lay delloo yàlla ne iqtaraba jege na linnaasi ñeel nit ñi xisaabuhum seen xisaab waxum te ñoom fii xaflatin ñu ngi ci càggante mucriduuna ñu di way dëddu mu ne nit ñi dey dëddu nañu alaxira dëddu yàlla te waxtu wiñ leen nar a xisaab jege na te jógaguñ ci seen càggante la ndax maa yaatihim du dikkal leen min dikrin ci benn waar min rabbihim mu bàyyeekoo ci seen boroom borom desin boo xam ne bu ñuy waxtaanee la illa stamauhu lu mooy ña nga koy déglu waxum te ñoom yalaaboona ña ngay fo ñii kat ñu sàggan lañ ndax ñoo xam ne amul benn alquran wala genn waar gu leen di dikkal ñi leen koy waxee ñu di ko déglu lu mooy bañ koy déglu ñu ngay foontu ba du dugg ci seen xol yi foontu be laahiyatan aji sàggan la qulubuhum seen xol ya xol nag bu fekkee dafa sàggan soxlaawoo leneen soo koy waxee xol ba du la dégg waa saroo buur ne nëbb nañu ànnaj waa deyaale ge la dina ñi nga xam ne dala moo tooñ nañ ñi nga naan hal ndax déet kii illa basharun lu may mu nekk di mbindéef mislukum comme yéen ndax li mu nekk mbindéef ni ñoom moo tax mënuñoo daal gëm nit ni ñoom ñëw naan yàlla moo ko yónni buur nag ne afataatuuna ndax da ngeen di dikkee ak seera jabar ga waantum te yéen tub soroona yéen a ngi xam ne lii nekkul lu leer ndem wax ngeen ne waa ji ab jabar la ndax dangeen di dikkal jabar gi te xam ngeen ne moom loolu baaxut qaala mu ne rabbi sama borom de yaalamu moo xam alqawla wax fi samaa yi ci asamaan wala ardeeg suuf wa huwa yàlla assamiu mooy aji dégg waxi aji wax al alimu mooy aji xam la ko nar a fay ball fi nekk xaalo wax nañ ne li yonent bi wax daal du dara lu mooy abgaasu axlaamin ceeñeeri génte kuy nelaw rekk la ballu fi nekk ña nga naan iftaraahu duudal na ko yàlla ñu ne yàlla sax waxu ko def ko duudal yàlla rek ñenn ñu ñëw ne bal huwa lu fi nekk kii kay shaairun waykat la léegi nag ñu ne sa fekkee du waykat nekkul kuy nelaw du di gént nekkul bu buxaaba fal yaatinaa na indil ñu bi aayatin ci kaw téef kama ursila naka yónnee foon al awwaloona way jëkk ya maa amanat gëmul qablahum li leen jiitu min qaryatin benn dëkk alak naa boobu alak nañ ko afahum ndax ñoom yuminuuna nañooy gëm nag maanaa dëkk yi nga xam ne weddi woon nañ yépp suñoo gëm noonu la ñu nekkee woon ba ñu alak leen ndax ñoom ñi itam dangaa yaakaar ne dañuy gëm ñoomit it noonu la ñuy def kon te pour nga xam ci loolu la wóor wa ma arsalna masu ñoo yónni xablaka lu la jiitu yow yónent bi illa rijalan lu mooy ay góor ndem danga nekk góor nekk doomu aadama tax ñu weddi la ñun masu ñoo yónni lu mooy góor masu ñoo yónni jigéen masu ñoo yónni malaaka masu ñoo yónni jinne doomu aadama la ñuy yónni te ku góor ka la ñuy yónni kon loolu warul nekk sabab pour ñu weddi la ndax ñun mosu ñëw yónni lu mooy góor ñoo xam ne noox yi dañuy wax yu ilayhim jëm ci ñoom te boo bëggee xam lu leer ci loolu fas alu laaj leen ahla dikri ñi nga xam ne ñoo fekkee woon loolu ahla dikri mooy waa alquran mooy ñi nga xam ne ñoo jàngoon téere yu jëkk ya tawraat ak linjiil ñii jàngoon alquran su ngeen leen laajee danañ leen wax ne yàlla mosul yéen yónni lu mooy góor in kuntum dem nekk ngeen laa taalamuuna xamu leen wama jaalnaahum suñoo defal yonent yooyu jasadan yaram woo xam ne borom laa yaakuluuna duñu lekk taamaw ñam yonent yi dañu daan lekk di naan te it daanañu dee kon nag nga lekk nga naan nga dee du wàññi ci sa daraja dara moo tax mu ne wamaa kaanu nekku ñoon ñoom yonent yi xaalidiina di way beelu beelu mooy yàgg fi ñàkk fee jógeeti su ma sadaqnaahum topp ñu dëggalal leen alwaada dël ba mooy li wax fokk danañ ko danañ ko dëggal liñ leen dëgal dana ñëw fa anjay naa ñu musal leen wa man na nasha ak ku nu neex waa alak naa ñu alak almusrifina wa yàq yi mooy ñi nga xam ne dañoo jéggi dayo laqad anzalnaa wàccee nañ ilaykum ci yéen kitaaban téere boo xam ne fii nekk na ci dikrukum wàccee nañu téere boo xam ne seenu tudd nga ca wax nañ ca seeni mbir afala taaqiluuna xanaa amu leen ay xel ba mën a waaroo ci lii bëggam ko ba tey buura ngay xupp ak di waar ak di jubbanti doomu aadama mu ne na nga waaru yow nit ki ci àddina balaa ngay dem ci bis boo xam ne soo waaroo it dootut am njëriñ mu ne wa kam xasam naa bari na ba ñu dammee min xariyatin ci waa ab dëkk loolu ci ulamaawul bayaan dafa tuddee mbir mi ca turu xaaj ba ndax duwul dëkk ba waaye waa dëkk ba la woon kaanat nekkoon na dëkk boobu zalimatan di aji tooñ ci weddi ak bokkaale wa anshaana ñu sos baadaha gannaaw ga xawman aw nit aaxarina ñeneen bari na dëkk boo xam ne waa dëkk ba dañoo weddi woon yàlla ñu dammet leen alag leen sos fa ñeneen ñu ñëw seen gannaaw falama xasu ba ñu yégee basana suñu ay isaahum ci betteel ñoom ñépp yarkuduuna ña ngay saju minaa ci loolu saju mooy di tëpp ak di dal loolu bu fekkee ne nit ki dafa tiit moo koy def wala mu sigré comme ni daabay def di tëb di dal kooku mooy rakdu yàlla ne laa tarkudu bu leen saju warjiu dellu leen ilaa ma utriftum jëm ca la joxeef na leen ko ci xéewal ca àddina fiihi na ngeen dellu ca àddina fa xéewal ya nekkoon wa masakinakum ak seen laa laallakum ndax yéen tus aloona defi laaj leen xaaloo ñu nga naan yaa way la naa taskare ñeel nañu innaa ñun kan ndeke ku naa nekk nañ daalime ne di way tooñ moo tax ñu ñëw lool ñu ñëw ci mbugal mi buur nag ne ki nga xam ne jaamuwul yàlla ba yaakaaru lu may bu séenee mbugal ma muy saju di tëj di tëb di dal naan taskare ñeel na ma fa ma zaalat dañut tilka loolu daawaahum moo di seen ab woote ci lañuy ñuy yendu rek xataa jaal naahum ba ñu mujjël leen xasiidan ñu nekk di ñu ñu góob ñu ne ñekk di ak ngóobiif ngóobeef xaami ñu di way alku ñu di way dee wa maa xalaq naa binduñu sama asamaan wala ard ak suuf bu ma bay nu maag li ci diggante bi defuñu ko laacibiina ngir fo dañ koy def ngir nga waaru ci ndax nga liggéey fii looy ma a yóbbaale ëllëg law arat naa bu ñu bëggoon ñun yàlla an na taxida ñuy jàpp lahwan foo la taxas naaw kon ñu jàpp ko mi la dun naa fi ñun ndax mën nan ko in kun naa ndem nekkoon nan kay faa'iliina di way def ballu fi nekk naqsifu dañuy sànni bil xaq ci dëgg alal baatili ci caaxaan fa yadmuxuhu mu yàq ko fa idaa wa ci betteel zaahiqun aji dem la wala kum ñeen na leen alwaylu mbugal mi maa ci li nga xam ne te sifuuna da ngeen melal ko ci seen lammiñ ci sàkkal yàlla moroom wala woo ñeel na yàlla ci moomeel man ñépp ñi nga xam ne fi samawaati ñu ngi ci asamaan wala ardik suuf wa man indahu malaaka yi nga xam ne ñoo nekk fa yàlla nag ñoom laa yastakbiruuna du ñu rëy rëy lu mukk ci jaamu an ibadat yi ci jaamu yàlla wala yastaxsiruuna te ñoom nekkuñ ñoo xam ne dañuy sonn du ñu sonn du sonn ci jaamu yàlla yu sabbixuuna ñi ngay sabbaal te mooy sellal yàlla layla ca guddi wa naar ak bëccëg laa yafturuun ñoom du ñu dog ci loolu bàyyi na loolu ma ngi ñëw ci mushrikoona yi dafa nara a ñoom ci seen pas-pas boo xam ne dafa yàqu ñoom mushrikoona yooyu nga xam ne ñooy sàkkal yàlla bokkaale ak naan yàlla dafa am doom malaaka yi ñooy doomu jigéen yàlla moo tax buur ne amit taxasu ndax dañoo jàpp aalihatan ay yàlla minal ardi ci suuf si hum ñoom yun shiroona ñu nekk ñoo xam ne dañuy mën a dekkal ku dee di ko def nashru muy dekki law su nekkoon fiihima ci asamaan ak suuf aalihatan ay yàlla ilallaahu lu ma yàlla mi bind bu fekkoon yàlla yu baree baree bari moo am muy kilifa yu bari ku ci nekk di dogal kon la fasadata kon asamaan ak suuf danañu yàqu fa subhaanallahi sant ñeel na yàlla rabbil arshi yàlla moomoom arash sell ñeel na ko ak ak jomb amaa yasifuun cala la danañu ko melal ci seen i làmmiñ naan yàlla am na morom wala doom yàlla kay moom aji wéet la ci jëmmam aji wéet la ci melokaanam yàlla aji wéet la itam ci jëfam ci jëfam nag loolu lu tax mu wéet képp kenn ku ñu bind loo def bés dana ñëw yàlla laaj la ko yàlla na kenn du ko laaj lu tax nga def lii moo tax mu ne laa yus alu deefu ko laaj amma yafaalu ca la dana def ko waxum te ñoom yus alu na def na laaj leen amit taxasu ndax jàpp nañ min dooni lu dul yàlla aalihatan ay yàlla su fekkee loolu am na kul waxal ne haatu indi leen burhanakum seenu lay haza lii muy alquran ji zikru man zikru zikru man su dëkk nga xam ne maa yi ñoo nekk ak man maanaam seen ak waar ci nekk wa zikru man qabli ak waar ak ñi jiitu woon ñëpp ci alquran ji lañ leen di waar ballu fi nekk ak tarum gën di bëri seen a yaalamuuna xamuñu alxaq dëgg foofu ñoom muaridoona way joxe la ñu gannaaw wa ma arsalna masuñoo yónni min qablika lu la jiitu min rasulin ci yóninte illaa nuuxi lu moy dañuy wax i lay jëm ci moom ne wax jii daal yóninte bu mas ñëw yàlla nee na wax na la ko mooy lan annahu luy mbir laa ilaha dee benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg jaamu gi di indi mucc ñàkk jaamu gi di indi toroxtaane illaa ana lu may man yàlla mi bind kon faabuduuni ma wa ñu nga bind ko mu am ay xuraki tund ak melokaan yoo xam ne yu bari la ba mu mu bind jant bi bind weer wi boole leen ak suuf si ñu nekk ci benn béréb jant bi di lakk ci biir suuf si di ci bàyyi ay tàngaay yoo xam ne ay daggiti safara la bés mu neex yàlla mu teqalee asamaan si suuf si ba mu leen teqale jël asamaan si te mooy jant bay weer yóbbu leen ca kaw bàyyi suuf si nag mu nekk fii léegi nag suuf si bàyyi woon na ay dogiti safara jant bi bàyyi woon na ay dogiti safara ci biir suuf si dogit yooyu nag dañuy nekk ci biir suuf si di tàkk bu ñu jotee yoonu ndox woo xam ne yoon wi dafa dee mu def pax ñu jaar ca bu ca safara sa jaaree bu ñëwee foo xam ne ak ku suuf si dafa xaw a néew doole mu ne tëf dal di tàkk loolu la ñuy tuddee burkaan muy volcan su ko defee mu tàkk bu tàkkee ba fay dal di nekk montagne loola safara soosu ci suuf si jant bi moo ko fi bàyyi woon loolu alquran wax na ko bu yàgg balaa cee boroom xam-xami géologie yi balaa ñu cee ñëw fekk na alquran waxoon na ko loolu lay wax ne alam yaraw mu ne awalam yara ndax xamul alladina ñi nga xam ne kafaroo weddi nañ ne bokk na ci kawte fi yàlla kàttanam ànd samawaati naka asamaan yi te asamaan yi mooy al ajraamu sawa samawiya yi nekk ci kaw yooyu yépp walla ard ak suuf sii kaanataa nekkoon nañ ñoom ñaar ratqan di way taqaloo fa fataqnaahumaa ñu teqale leen wa jaal naa ñu def nag minal maa yi ci ndox kulla shay lépp lëf xayin muy aji dund afalaa yuminuuna xanaa gëmuñu yàlla moomu nga xam ne mbir mu nekk su koy sos cim ndox la koy sosee tax na ndox fu mu nekk ab dund dal fay am waaye fu ndox sori dund jafe lu fay dund itam dal di néew ndax lépp luy dund ci ndox lay jóge wa jaal naa def nañ filaar di ci suuf rawaasiya ay kenu mooy doj yi ndax suuf si comme dafay dox dafay dox di wër jant bi dox boobu muy dox ak noonu muy gaawee ci dox bi bu fekkoon yépp dafa nekk beeñ kon fekkoon na mu tuuru moom suuf si waaye montagne yi ci yàlla def ñoom ñoo ko téye mu téye géej yi ba du sotteeku ci suuf si suuf si du sotteeku ci géej yi moo tax mu ne wa jaal naa def nañ filaar di ci suuf rawaasi ay doj mu di kenn yu ko téye ñu ne lu tax mu ne an tamida bañ muy jëngaloo ko daanu biim ak ñoom wa jaal naa ñu def tiyaay ci suuf fi jaajan ay mbedd doomu aadama di ci jaar di xamu yoon ndax boo taxawee tey doo seen ndar doo seen kawlax waaye boo jógee da ngay yen benn boor ne fii la mbedd yooyu ak yoon yi ngay xamee yàlla ne maa leen koy defal lu tax laalahum ndax ñoom rek yaa te doon nañu mën a jub wa jaal naa def nañ sama asamaan fan mu dim téeg def nañ asamaan muy terrasse boo xam ne ci sa kaw la nekk te du am bëtt bëtt du daanu doo gis li ko yenu mahfuuzan nekk lu ñu wattu ci bënn bënn ak max ak yàqute waxum ñoom muaridoona loolu yëpp mu di kawtéef ma wan leen ko terewul ñoom ñëpp muaridoona ñu ngay dëddu an ayaatiha walis kawtéefu yàlla yooyu wa huwa yàlla allazi mooy buur bi nga xam ne moom rek xalaqa moo bind layla guddi ponkol mu tol ni guddi buy ñëw sax doo dégg riir mi da ngay toog toog rek yëg na yaa ngi ci guddi wa nahaara mu def bëccëg buy ñëw doo dégg yëngatu bi day yëg rek lépp leer nga xam ne nekk nga ci bëccëg wa shamsa mu def jant ak li ci nekk ci njëriñ mu di ko jëriñ doom adama ak jurge wal qamara mu def weer wi muy leral kullum kep ci ñooñu nak yasbahuna ñi ngay fey fi falakin ci seen ngunu amu ci kenn ko xamne da nga tak ci mel ni mbir ku nek da ngay fey ci jaww jo xamne la nihayi la lolu moy falak bi nga xamne ci lay jaar su ko defee jant bi am fu muy ku ci ci bopam waaye jant bi nak du dox du fenke ci ci ci penku rek xotti rek daanu ci ci sow comme ni ko ñu bari foogee même suñu école yi sax bu daan jàng tubaab bu yàgg dañ daan wax ne jant bi dafay fenkee ci ci penku di soyee ci sow maanaam dañ yaakaar day xotti dañ ko daan jàngal gune yi waaye loolu wuute naag li nga xam ne mooy xam-xam ak li nga xam ne moom la yàlla wax te it wax ko ci jant bi jant bi ci benn béréb la nekk waaye day walbatiku bi yàlla ne wa shamsu tajri waye daf ne li mustaqarrin laha jent baa ngi daw waaye ci benni saxuwaay la nek di di walbatiku weer wi di daw and ak suuf si ñi di ko wër suuf si itam di wër walbatiku googu nga xamne suuf si mom lay walbatiku lolu moy jur guddii ak beccëk ci ñaar fukki waxtu ñent yu nek bor bi farak jent bi ñu ngi ci beccëk bor bi nek ci keppaar gi ñu ngi ci guddii su walbatikoo ñale am guddii ñale am becek. ndem suuf si nag dafa mel ni mu nen xaw a gudd loolu moo tax boo demee ca aqsa qutbul janubi ak aqsa qutbu shimali ñoom juróom benni weer la ñuy am guddi ak juróom benni weer bëccëg at mi yépp genn guddi lañ ci am ak benn bëccëg ndax ñoo nekk ci ñaari cati nen ba te nen bi du walbatikoo guddaay bi day walbatikoo yaatuwaay bi ba mat juróom benni weer mu door a walbatikoo guddaay bi loolu la ñooy ñooy eskimo ñooñu nan la ñuy wooree li ñuy wooree mooy dañuy nattalee réew moo xam ne moo leen gën a jege ci réew yi ñu ne réew moomu day bëccëg fukki waxtoog ñaar la fay doon ñu ne kon nag ñaar fukki waxtoog ñeent yu ne nañ ci jàpp woor ci fukki waxtoog ñaar lekk ceeg naan fukki waxtoog ñaar ñooñu fanweeri fan rekk la ñuy woor maanaam fanweeri yoon la ñuy def noonu yàlla ne kéemtaan yooyu yépp def naa ci doomu aadama terewul ba tey doomu aadama moom xalaatut ci kii def lii kan la ba mën a gëm kàtt ni kooku <clears throat> bay na lool mu ñëw ci mushrikoona yi mooy ñi sàkkal yàlla bokkaale lan mooy seen taxawaay ci wàllu yonent bi nan lañ ko gisee niñ ko gisee mooy kii bu ko yàlla yónni woon du dee kii bu ko yàlla yónni du ñàkk kii bu ko yàlla yónni woon ay malaaka danañu ànd ak moom noona lañ ko gisee ñu ne kon yàlla yónniwu ko kon weddi nan ko ndem weddi nan ko nag te nee na dafa am mbugal dañ ko takk taxawal rek nekk ko soo amee mbugal na ñëw léegi bul xaar loolu lay wax ne wa maa jaal naa masuñoo def li basharin ñeel benn mbindéef min qablika lu la jiitu alxuld ak béel su fekkee nara dee gi nga nara dee moo tax yéefér yi weddi la na nga leen yëgal ne mosuma bind kenn mu bélu mu sax fii ci àddina rek du fi jóge léegi afayin mitta ndax yow yonent bi boo dee ndax fahum ñoom ñoom alxaalidoona ñoo fiy sax ndax ñoo fiy béelu dee wallaay kullu nafsin bépp bakkan rek daa iqatul mawti aji mos la mu dee loola sikk nekku ci nu lu mu rëy rëy ak lu mu tuuti tuuti lu mu xam-xam lu mu réer réer lu mu bari le bari barile lu mu ñàkk-ñàkk ak lu mu kawe-kaweeg lu mu suufe-suufe faw wa dana dee te dee am nga muy dee moom rekk moo koy dee keneen du ko ko deeyal moo koy jëlal boppam su ko defee gannaaw dee it am na lu ca topp mooy wa nabluwukum danañu nattu leen bi charri ciw ay wal xayri ku yiw fi natan ngir nattu waaye wa na def na delloo leen ilay naa ngeen jëm ci ñun wa iza raaka ndem gis na la alladina ñi nga xam ne kafaru weddi nañu in yettaxiduunaka deen ñuy jàpp la illaa lu may nga nekk di ku ñu yejji ñu yejji mooy reetaan reetaan mag ko mën a def waaye gune moom ree man léeg nga dégg ku ne gune gaa ngi reetaan waaye dafa déggul wolof reetaan mag a ko man ndax reetaan ci xol lay jógee ree nag la ku nekk mën a def ndax loolu gémmiñ a koy def waaye reetaan moom ci xol lay jógee loolu mooy huzu moo di yejji mun ñu ngi ko naan ahaza ndax muhammad mii lazi mooy ki nga xam ne yaskuru moo doon tudd aliyatikum seen xiram yi naan xiram yi nangam ak i nangam wahum te ñoom kaafiruuna way weddi lañ bi dikri rahmaani ci tudd yàlla xuliqa bindeef na al insaanu nit min ajilin ci yàkkamti sawrikum danaa won leen ayaati samay kawteef fala tastaajiluni bu leen ko yàkkamti kawteef yaa ngi ñëw wa yaquluuna ña nga naan mata haazal waadu ana kañ la boobu dëhal dëhal bi ñu yàllay dëhal naan mbugal dana ñëw loolu kañ la in kuntum ndem nekk ngeen saadiqina di way dëggu law yaalamu bu xamoon la dina ñi nga xam ne kafaru weddi nañ waaye yéeféer bu xamoon bés pénc bu ñëwee ba safara si ñëw ñu sànni ko ca safara si di lakk ba ca xar kanamam te du ko mën a dindi kon dana bàyyi ni mu nekkee moo tax mu ne law yaalamu bu xamoon la dina ñi nga xam ne kafaru weddi nañ xiina laa yakufuuna waxtu wi nga xam ne duñu fekk an wujoohim wali seen xarkanam naara safara wala an duhurihim duñ mën a fegal safara seen gannaaw gi buy ñoreeku wala hum déen ñoom yun soruna dee fi tere leen walis mbugalam yàlla kon kon ni ñu mel danañ ko bàyyi ballu fi nekk taatihim dana dikkal leen moom mbugal mi baxtatan ci mbetteel fa tabaatuhum mu alag leen mu not leen wala mu gëlëm loo leen fala yastatiuna duñu mën raddaha ak delloom wala hum déen ñoom yun soruna dee fi muñal leen ndax yàlla bu xasee jàpp muñal ma dootu ci jëriñ wala qad tuusiya yàlla ne yejjeefoon na bi rusulin ay yonent min qablika lu la jiitu fa dal di wàcc bi la ne ci ñi nga xam ne saxiroo reetaan nañ minum ci ñoom maakaano li ñu nekkoon yestaasio na di yejji ko loolu dana wàcc ci ñoom maanaa danañ leen ko fay bàyyi na loolu mu ñëw bëgg a wax ne dogalub yàlla kenn mënu koo raw yàlla bu naree dogal mbir kenn mënu ko raw waaye kenn mënu ko dindi lu yàlla nara indi ci yow itam su baaxee kenn du ko kenn du ko fanq waaye bu bonee itam kenn du dox sa digg ak loolu dogalab yàlla doomu aadama munu koo raw te doomu aadama dundam yépp dafay mel ni benn charit maanaam benn film boo xam ne dañ koy tourné muy muy wëndeelu loolay dundi doomu aadama yàlla xam na lii fan lay teeree te fi muy teeree moom munoo fexe ba teggi ko fokk dang ci jaar kon nag ku yebu nga nekk ci li nga xam ne la war rek li ci des nga ko yàlla ndax li muy def kenn mënu ko ko teree def te fii ku nekk da nga fi jóge te boo fi jógee dara du xew dara du xew ñépp dañuy añ ñiy reer jënt fenk sorek dara xew ak noo mën a toll fii ku nekk rek da nga fi jógee te dara du xew ndem ki yàlla yónni woon ci ñun moo fi jógee ñuy yeewu di ndekki di añ di reer jant di fenk di so kon nga xam ne ku ne da nga fi jógee te dara du xew jant bi du fenk ngir deew kenn du sooy itam ngir deewu kenn weer wi itam noonu yàlla rek mooy yàlla ñun ñëpp ay jaam lañ ñoo bokk yem ca kanam yàlla moo tax buur ne man maa yoree kattan li maa yoree mbugal mi ku ma nar a bugal kenn mënu laa wattu xul waxal yow muhammad ne man yaklaukum ana kan moo leen di wattu bi léeli ci guddi wa naa rek bëccëg min arrahmaani ci yàlla ku yàlla nar a jàpp ana kan mooy dox sa digg ak yàlla ba loolu ñàkk manaam bal lu fi nekk hum ñoom muariduuna way dadu lañ an dikki rabbihim ci tudd ak seen borom am ndax ñeel na loon bon aalihatun yeneen yàlla tamnaahum yu leen di tere ci mbugalam yàlla ma min dunina walees nun yàlla su fekkee loolu am na laa yastatiuna ñooñe day duñu man sax nasra anfusihim bu fekkee am ngeen yeneen yàlla yu mooy yàlla seen yàlla yooyu alquran nee na yooyu yàlla duñ man sax fegal seen boppa dara wala hum deen ñoom deen ñoom yàlla yooyu yusxabuuna ñu dee fi dimbali leen wala yusxabuuna dee fi musal leen ci mbugalam yàlla ballu fi nekk ma mataanaa xéewal nañ xaawulaay ñii waa baawum ak seen bàyya xataa taala ba yàgg alayhim ci ñoom umru dund ba afalaa yaraw na mu ne ñii daal àddinaa yàgg ak ñoom rek ñu yaakaar ne lu du jeexati ni lay mel dund bee yàgg ñoom waaye afalaa yaraw na ndax dañoo gisut ne ana ñun yàlla naati ñooy indi al arda suuf sa nan xusuwaa nu koy wàññi min atrafiha ci wàllam ya ñun ñuy jël suuf di ko wàññi géej gi di ko lekk di ko lekk di ko lekk ba ku dëkk ci weti géej bu yàggee mu jël sa kër ñun ñuy def loolu wala boog nga ne ñépp dañoo weddi woon ñuy jël imaan di ko dugal nit ñi di gëm di gëm ndànk-ndànk ñaari prix yooyu lañ koy firee nan xusuwaa min atrafiha afahum ndax ñoom alxaaliboona ñoo di way not gannaaw loolu xul waxal ne innama unzirukum naka danaa waar leen bil wax yi ci li yàllay wax yu ci man wala yasmau du dégg nag asumwaa ji tax duwaa woote isama yun zoroon ba dee fi waar leen ab tax nag soo koy waarit daanaka dangay yàq sa wax ndax moom du dégg buur ne wala in masathum ndem laal na leen nafxatun bu fekkee laal na leen nafxatun ab cër wala xéewal wala ab cër daal bu leen upp yegsi ci ñoom min adabi rabbika ci mbugalam sa borom koo ci xam ne yàlla jox na la ab cër ca mbugal ma mu ñëw ci yow bu lan nga yaakaar lu moy la yaqulan na danañu wax naan yaa waylanaa toskare ñeel nañu innaa ndekk ñu ndekke ñun ku naa nekkoon nañ ci àddina baalimiina di way tooñ loolu la ñuy wax bàyyi na loolu mu ngi ñëw ci maanduk borom asamaan te mooy yàlla yowmal qiyaam loo fekk foofu rek xamal ne yaa ko fa liggéeyoon bu tuutee ba tol ni peppi suuf danañ la ko fay ci lu baax buy lu bon danañ la ko fay kon yow doomu aadama boo nga nga seet léegi li ngay def bu rafetee yaa koy moom su bonee itam yaa koy moom moo tax yàlla ne wa nada ñu tëral almawasina mandaxe ya mooy peese ya alqista yi ding maandu li yowm alqiyaamati ci bis pénc fala tudlamu defu tooñ nafsun bakkan cheyan tus loo gis rek yaa ko fa defoon wa kaana donte nekkoon na la mu liggéey misqaala xabbatin kem pepp min xardalin wu tuutee ni péppi xardal ata atay naa ñooy ndi biyaa ca moom fay ko borom ndax baskil bu sensible bu mën a yëg la wa kaa wa doy na bi naa ci ñun yàlla xaasibiina ñu di way xisaab bay na loolu del ci na ci qissatu Moussa qissa boo xam ne dawe woon na nettali woon nañ la ci gën a bari mu ne wala xadaati naa joxoon nañ Moussa wa Haarun alfurqaana alquran mooy bi teqale dëgg ak fen wa diyaan mu nekk dig leer wadikra dikra wa dikran mu nek di war lil muttaqin ñal ñi nga xamne ñoo ragal yàlla lazina ñi nga xamne yakhshawna yaxshawna danañu ragal rabbahum seen borom bil ghaibi ci faddu ragal sa borom ci faddu moo di ne yaangi ngi fu la ken giseewul nga gis alali jambur mo ndax da ko jëlam da ka fa bay da ngay seet rek ci sa bop nek nga fu la ken giseewul dara dara dara nga fekk njunne ci fenn mu nek fa noo def soo ko fa bàyyee kon ñu xam ne ragal nga yàlla fu kenn nekkut boo ko fa bawut nag wala ñu xam ne kon ndeke yow bu ñu la nit gisee rek ngay ragal yàlla waaye bu la gisul <clears throat> dangay nga jël alali jaamur joojule walla boog kii ku jigéen la sa digg ak moom dagan nekku fa waaye nag kenn gisul leen ndax daa ko fa bàyyi walla déet demet nag aljana tudd nañ ko xamoo nu mel ndax daa ko gëmam déet dekki tudd nañ ko xamoon nu mel ndax daa ko gëmam déet malaaka xamoon nu mel ndax da ko gëmam déet loolooy ñi nga xam ne ñoo ragal seen yàlla seen borom bil bi ci lu faddu waxum te ñoom mushiquuna dañuy tiit mine saati ci dikk ak bés pénc wa lii zikrun ak waar la mubaarakun guñ barkeel la ansal naa wàccee nañ ko ci yow afa antum ndax yéen munkiroona way weddi ngeen la woo ca alquran jooju dellu si na ci bàyyi na loolu ñëw na ci qissa yonteelu ibrahim alayhi salaatu wasalaam namrud ibnu kanaan moo doon buuri baabil ñëpp defoon nañ ko ne yàlla la ibrahima nag ba mu yeggee ci boroom ba xam luy boroomam mu yónni ko ibrahima ne moom dootul jaamu xiram yàlla joo xam ne soo ko dóoree sax du mën a fayu boo xiifee du ko faj boo maree du ko faj mënula wàcce taw ibrahima ne moom du jaamu jooju yàlla mu xuloo ceeg baayam ba baayam tong ko génnee ko ibrahima ne du tere danaa la ñaanal yàlla amaan na mu baal la xam naa ne dangaa xamul ibrahima nag di defanteek ñoom béréb bi nga xam ne fa lañ teg seen xiram ya nga xam ne ay garab lañu doon rose def ko yàlla ibrahima bés bi nga xam ne dañ ne tey lañuy ñuy feetal yàlla yi mu ne moom dafa opp mënul dem mu bàyyi gaaya feet ga nag dañ daan génn ci bitti def ko fa rey ay gàtt toggaay ñam tegal ko xërëm yi ibrahima toog rek ba gaa ñi tegal xërëm yi nag ëfal xërëm yi ndax danañu lekk buñ ko defal rek rab yi ñooy ñëw lekk ci ñu ne yàlla yi lekk nañ Ibrahima làqatu rek ba gaañ a dem mu jël ngor kaam dal di gor yàlla yépp ñi tëdd mu jël yàlla ju mag ji wékk ko nag ngorka bi mu ko wekkee semiñ wi nag làqatu nag gaa yi ñëw daldi di na waay ana ku def lii yàlla yi kii dey ku mën a tooñ la ku def li yàlla yi ñu ne ah xamuñu ko de benn waay ne ah kon nag xam ngeen ne ñun ci dëgg di jaamu yàlla joo xam ne buñ koy gor sax du du mën a fanqal boppam loolu ñu commencé di yeddante ci seen diggante ñu ne am na fi ki benn waay day moom day da doon xas yàlla yi gëmut leen woon Ibrahima la tudd ñu ne kon boo demee moo moo rey yàlla yi ñu ne jëli leen ko jëli leen ko ñu indi Ibrahima ci seen kanam dal ne waaw ngóor silee ndax yaa def lii suñu yàlla yi mu ne ah déedéet laaj leen leen ndax ñoom danañu wax comme ñoo yàlla kay ngeen leen di laaj daal na ragal naa ne ragal naa ne yàlla ji mag ji moo gor yu ndaw yi ndax dafa bëggul kenn bokkaaleek moom nguur gi xam naa loolu la noonu leen Ibrahima dal di ci ci waxaat ci waxaale ba ñu xam ne kon ñoom nekkuñ ci dëgg ñoom ñi jaamu koo xam ne du bind du rey du dekkal yorewut xéewal yorewut mbugal mënta fanqal boppam dara kon kooku mënta nekk yàlla moo tax mu ne wala qad aataynaa joxoon nañ ibrahima rushdahu njubam ma min qablu bu yàgg nag la wa kunnaa nekkoon nañ aalimina di way xam bi ci ibrahim is qaala bu muy wax li abihi ñeel baayam wa qawmihi ak nitam ña mu leen waaw yéen maa haadihi tamasil lan mooy nataal yi allati yi nga xam ni antum yéen aakifuna way sax ngeen laa ci jaamoom xaalo ñu ne ko ñun dey wajat naa fekkoon nañ abaana suñ bàyyi rek ñun kay amuñ ci sax benn xam-xam xanaa dañoo fekkoon baay maam la abidina di way jaamu laa ci tamaasil na taal le xaala mu ne laqad kuntum kon dey nekkoon ngeen antum yéen waa baawukum ak seen baay fi dalaalin ci réer mu bindin guddaa ji bir ñu ne ko mooy ibrahima yow dëgg la walla dangay ngay kaf ajiitanaa bil xaqi am anta min a laaibin yow dangay ngay fa wala dëggale ci yow da ngaa weddi suñu yàlla yi moos xaala mu ne ballu fi nekk kay ki ma gëm rabbukum mooy seen borom rabbu samawaati mooy ki moom asamaan wala rek suuf allazi mooy ki nga xam ne fatarahunna moo leen bind waanaa man dey ala dalikum ci loolu ne ko yàlla min ashahidin bokk naa ci ñi koy seede wa taalaay géñ naa ci yàlla ne laa ki dann may danaa fexeel asnaawakum seen xiram yi baada antu walloo bu ngeen joxee gannaaw mudbiri na ngeen di way dëdd danaa ba fexeel yàlla yi ñu dem fa jaalahum ibrahima daal di mujjal yàlla ju juzaadan mu di lu ñu dagg jóor ko teg ilaa kabiran lu moy aji mag lahum ñeyal leen yàlla ju mag ji la fa bàyyi mu ne laallahum ndax ñoom yarji'uuna ñu del ci di laaj ilay ci yàlla ju mag ji qaalu ba ñu ñëwee ñu wax ne waaw man faala kan moo def haasa li ji jëf bi alihatina suñu yàlla yi innahu kii day la mina zalimina bokk na ci ñi tooñ moom mi gor yàlla yi qaaloo ñu ne ah samina déggoon nañ fatan benn waxambaane yaskuroo mu leen di tudd tudd boo xam ne bu ñaaw la yuqaalu lahu ibrahim kooku ibrahima la tuddoon qaalu ñu ne faatu bi yàlla ayuni naasi indi leen ko ci kanam ni ñëpp ñun ñëpp ñu wër ko laalum ndax ñoom yashadoona ñu seede leen ko nar a def qaalu ñu ne ko anta mu ndax yow faalta def nga haasa lii bi aliyatinaa ci suñu yàlla yaa ibrahim ndax yaa def lii qaala mu ne déeret ballu fi nekk def na ko seen yalla ju maggi ji haasa ji moo def fasaluhum laaj len len in kanu yantiqun su fekkee danañu wax kay danañ ko mën wax farajoo ñu delu ci ñom nak ila anfusihim seen bop ñu ngay yeddante nak xaalu ñu ne innakum yéen day antum yéen zalimun yéen a yen ñi jaamu ko xamne buñ koy ray sax du ko mën wax su mënu kiso top jettef len ala ruusim seen bop ya laqad alimta ñu del ci nak ne ibrahim ñu seug lu yag dal di xalaat ne ibrahim laqad alimta xam nga ne ma haulay den ñi yantiquuna ñuy wax xam nga ne yàlla yi duñu wax de xaala mu ne kon nag awa taabuduun ndax da ngeen di jaamu min dooni laay lu dul yàlla maa loo xam ne laa yanfaukum du leen jëriñ seen toos wala yadurukum du leen lor ufin mbas ak néew doole ak a xeebu lakum ñeen la leen wali maa taabuduun ak li ngeen di jaamu min dooni laay tuduut yàlla afala taaqiluuna xanaa amu leen xel xaaloo ñu ne kon nag nañ sàkkal pexe ibrahim ñu taal aw safara ne dañ ko ciy sànni ñu daal di ko mbëq sànni ibrahima ci safara wa bañ ko sànnee ba ibrahima nekk ca kaw tiim safara sa di daanu jibril dal di ko dogaale ne sa borom ne lan nga soxla tey nanga ko ko wax léegi mu defal la ko mu ne bu fekkee ne ci yow la de yow jibril dara soxlawu ma ko bu fekkee ne ci moom yàlla la nag xam gim xam ci li ma nekk doy na ma jarul ma di ko ko wax ndax moom xam na ko <clears throat> noonu laa moon imaan xaaloo ñu ne xarriqoohu lakk leen ibrahima wan suroo dimbali leen aliyatakum seen yàlla yi in kuntum faailin ndem da ngeen di fayu kay am lu ngeen di def bañ ko sànnee nag yàlla ne qul naa ñu wax ne yaa naaru e yow safara koo ni nekkal ndeke safara dafa ku ko moom bu ko kooku lakkaloo du lakk ki ki moom safara nag ne nekkal safara yow bardan di aji sedd wa salaaman nga nekkit di jàmm ala ibrahim ki ñu doon jàngal waxoon nañu ne su fekkoon ne baatab salaaman amu kon sedd bi dana gaañ ibrahima safara dana sedd ba gaañ ko waaye yàlla daf caa teg wa salaaman na nga sedd waaye nekk jàmmaale ibrahim wa araado bëggoon nañ bi ci ibrahima kay danaam pexe fa jaal naaw ñu mu jël leen alaxsarina ñoom ñooy way perte ya wana jey naaw ñu musal ko noon la ibrahima demee yonti yàlla luut moom itam mbokk ibrahima moo ko jur moom it jàngatoon nañ mbiram moom la yónni woon ci juróomi dëkk yi ca yu ñu daan tuddee Saadoom mu nekk ci baaxarul mayiti ci baaxarul mayiti ci weti Jordani mu ne war na jéynaaw musal nañ ko walootan loot itam ilal ardi ñoo ko yónni ci suuf sa alati suuf sa nga xam ne baarak naa barkel nañ fiyaa foofale lil aalamiina ñeel bindeef yi mooy suuf sa su nga xam ne dafay bari ay taw ak i xéewal waa am naa ñu may la woo ñeel ko isxaaqa moo am isxaaqa ak yaquba ci ay sëtam naafilatan loolu yépp dal di nekk di ak ndollante ibrahima loot ci njabootam la bokk isxaaqa ak yaquba ñooñu ay doomam lañ ci ay sëtam lañu yépp mu ne ak ndollante la dañ ko may ay doom ñu nekk yonent ñu may koy sët mu nekk yonent loolu dañ ko ko dollil ci baxam wa kullan képp ci ñooñu jaalna def nañ leen saalixiina ñi di way wa jaal ñu mujjal leen aimatan ñu nekk di kilifa yaa doona ñuy jubee bi amrina ci suñ mbir wa wahina ñu wahyu ilayhim ci ñoom فعل الخيرات جف jëf ju yiw ji wa iqaami salaati ak taxawal julli wa wa kaanu nekk nañ abidina di way jaamu lanaa ñeel ñu yonent Yàlla Luut nettali woon nañ ko moom itam bi nga xamee ne yónni nañ ko mbooloom ma di def jëf ju bon joojale ñu alag leen ganaaw ga yonent Yàlla Noox moom itam nettali woon nañ ko mooy borom gaal ga ak tuufaan ba moo tax alquraan ne wa luutan jàngal luut aatinaaw joxoon nañ ko xukman atte ba wa ilman na xam-xam ak yónente ga wa najaynaahu musaloon nañ ko min al qaryati ci waa dëkk ba dëkk baa tudd Sadum foofa lañ ko yónni woon alati dëkk ba nga xam ne kaana nekkoon na taamalu di jëf alxabaayisa yu bon ya ndax ñoom ñoo daan jote góor bayi jigéen jooju jëf ñooñu ñoo ko njëkk a def foofu ci Moyen-Orient innahum ñoom kaanu nekkoon nañ xaw ma saw in nit ñu bon lañ faasiqiina ñu di way génn nag topp jëf jooju alquran nee na ku ko def nañ ko lor nañ ko jàpp bugal ko alimaamu malikin radiallahu anhu nee na ida raaytu man yaamalu amala qawma lootin faqtulu lfaaila walmafula bu ngeen gisee góor ñuy def loola na ngeen rey ka koy def ak kañ koy def mooy jugé ba compliment ba yépp nañ leen bokk rey loolu moo ci àtte sharia ci ñooñu nit ñooñu nag loolu la ñu daan def qawma sawin fasiqin wa adxalnaahu dugal nañ ko fi rahmatinaa ci suñu yërmande innahu naka moom min asaalihina bokk na ci wayiw yi wa nuuxan mu ne na nga jàngat yonte yàlla noox moom it isnaada waxtu wa mu wooyee min qablu ci jëkk fastajab naa ñu wuyu lawa ñeel ko fa na jey naaw ñu musal ko waaloog ñoñam min alkarbi ci jàqare ja alazimi judaay ji màgg wa nasarnaawu ñu dimbale ko min alqawmi ca nit ña la jëne ña nga xam ne kat da boo weddi woon nañ bi ayat naa ci suñu alquran innahum naka ñoom kaanu nekk nañ xawma sawin di nit ñu bon ñoo xam ne ay ay ay fasiq la ñu doon gën a topp faaxar naa mu ñu labal leen ajmaina ñoom ñëpp léegi nag bàyyi na ñooñu mu ñëw ci daawuda ak suleymaan yonent yàlla daawuda alayhi salaatu wasalaam mu ne na nga jàngat daawuda ak suleymaan yonent yàlla suleymaan bi mu màggee ba man mu kàllaf te daawuda moo ko jur waxoon nañ ne daawuda moo àndoon ak taaluta moo reyoon itam jaaluta ba mu ñibbisee yàlla jox ko nguur ga ak yonent bi daawuda nag di àttee ba ko yàlla ne yaa daawuda yi naa jaal naa ko xalifa na nga ci nit ñi te bul jeng Suleiman man mu kàllaf yàlla yónni ko wante yàlla beragu ko mu ngi topp ci baay ji daawuda benn bés ay di ñëw di attelu ci tool ak ak jur kii ne man day dama bay sama tol ba mu baax sàmm bi ñëw dugal ci juram gi ñu lekk ko léegi amatuma lu ma dundee daaw daawuda ne da jël juróom gi moom ko moom mu perte ndax moo yàq li nga doon dundee kon li mu doon dundee da koy jël Suleymaan doom ji ne ko bàyyi man de bu doon man danaa attee neneen mu ne ko doom nooy attee mu ne dama sàmm bi jëlal sa jur gi jox ko waa ji mu koy sàmm di ko ratt di dundee ci soow mi yow nga dem bayaat tool ba dundal ko ba mu toll fa mu toll woon bi nga koy yàq nga ñëw fii jox ko toolam te jël sa jur mu ne alhamdulillah noonu la Suleymaan remplacé Daawuda ca gàngu naay àtte ga Suleymaan Daawuda nag ku bariwoon ay kéemaan la bu daan jàng doj yi sax dañuy jàng di ànd ak moom picc yi bu ñëwee ci nee bi dañuy taxaw duñ demati ndax déglu ni baat bi neexee ñuy jàng di ànd ak moom noonu la daan jàngee zaburam ba daawuda ku bari ay may la ku ñeme la ku amoon kàttan la loolu moo tax ñu xiiroon ko ci amaliqa jaaluta mu bokk ci xarib taaluta ba rey leen moo tax buur ne wa daawuda yow muhammad na nga fàttali nit ñi xisa daawud ak suleymaan is yaakumaani ba ñuy attee fil xarsi ca mbay ma is nafashat ba baabee sàmm sàmmi na nag ya ca bëccëg waaye baabal na leen ci guddi wattu guddi wolof du ko tuddee wëtal nag yi wëtal leen ci guddi gi déedéet wëtal wëta ba setee rek ñu wët guddi bu ñu wëttee dañ naan na na baabali nag yi loolu mooy nafachu fii ci moom xanamul xaw mi gàtti ab nit wakku naa nekk na ñu ñu yàlla shahidin di way seede li xukmihim seen àtte ba fa faham naa déggaloo mbir ma Suleymaan mu gën ko dégg baayam wa kulan képp aatay na jox nañ ko xukman àtte ba wa ilman xam-xam ba wa saxar naa ñu tàggat maa daawuda ànd ak daawuda aljibaala doja yu sabbi nañuy sabbaal wa tayra ak picc ya wa kunaa nekk nañ faa'ilin di way def de waa lam xamal nañ ko it ab tëgg tëgg nag ci la daan dundee sanaata la buusin nu ñuy liggéeyee koddaay lakkum lu ñeel leen di tox si na kom ngir mu ñoŋal leen min baasikum seenu ay maanaam mbubbi koŋ la daan tëgg mooy ay masque di ko tëgg boo ko solee bu ñu la jamee ci xare du dugg ci weñ gi lay yem loolu moo doon métiem faal antum ndax yéen shaakiruuna way sant ngeen kookule wali suleymaan ñeel na suleymaan riixa ngelaw loolu moo tax yàlla ne mecc yi nit ñi di meccewu duur na ci la ñuy gënante ndax daawudaa ngi nii yàllaa ko yónni gis nga ab tëgg la woon moom daawuda waaye jur na suleymaan suleymaan nekkul ab tëgg daawuda ay baayamit nekku ñoon ab tëgg te moom nekk na ko kon duut mecc la mu ñuy jàng rek ci loxo ak xarala waaye waruñ koo doonante ci deret ku ci nekk lenn ci yooyu itam xanaa boo ñàkkalee sa bopp solo rek nga ñàkk sa bopp solo taxaw naa nangam nangam la waaye yaag nit ñi yéen a yem wala nga gën nit ñi ndax yow am nga mécc moo xam ne mën nga koo taxawee kii nag moom def na yàcc rek dégg nga ne ni sama sama morom mi nga xam ne yow mënuloo dara yow yow pour nga def dara fokk kenn lay teg fenn rek def loola dara jox la dara waaye mënoo dara say loxo mënoo cee def dara mais ni aboo séet rek naan damay tëgg damay tëgg di ko jaayee fukki junne ba nax ci ndaw si ba takk ko ndekete woo moom li muy tëgg mooy ay way ak di tasrif ay baat waaye mënul tëgg dara <coughs> kon daaw daangoo ab tëgg la woon amul benn yonent boo xam ne amuloo métier ñoom ñëpp dañ doon liggéey yonent yàlla moom sa sàmm la woon gannaaw gi commerçant la woon di jaay ak jënd dem bitim réew di dagg frontières yi loolu moo doon métier daaw daa ngi nii dafa doon tëgg yonent yàlla ibrahima ngi nii moog ismail ñoom it ay ay maçon lañu woon aadamaa ngi nii baykat la woon waaye rabbakat la woon itam amul kenn koo xam ne amul loo doon taxawee yonent yàlla noox na ngi nii yettkat la woon bu la neexee nga ne lawbe la bu la neexee nga ne ministre la yaa xam yettkat rek la woon moom yonent yàlla noox kon amul kenn ci ñoom koo xam ne da nga daan toog daawoo def dara moo tax Omar ibn Xataab nee damay seen nit ma fonk ko lool ñu naan diwa ngay ñëw bu ma ñëwee ba ma ko laajee luy métier ñu ne mënul dara mu ne saqataan ay nii mu daal di ma daal di génn ci moom ne kii mënul dara moom mu ne dinaa jox góor loxo loxo bi dëgër lool ñu ne kii ouvrier la dafay liggéey mu ne dana ma jaral sax ma fóon loxo ba ndax fonk ko xam naa ne kii moos teguwut ci ay nawleem ñu koy yóbbaale ndax kii am na métier ma ngi liggéey dara <coughs> moo tax yàlla ne wa alam naahu xamaloon nañ daawada sanaata labusin nu ñuy liggéeyee koddaay lu ñuy sol lakkum lu ñeel leen koddaay loolu nag duhut lu ñuy waddoo di taar taarloo waaye lu tuxsinakum ngir mu ñoŋal leen min baasikum ci seen ayu xare fu kon maskala faalantum ndax yéen shakiruna da ngeen sant yàlla ci loolu wali suleymaan ñeela na suleymaan ga riixa ngelaw la aasifatan ngelaw laa ngay riddi tajri di daw bi am rii ca ndigalam ilal ardi jëm ca suuf sa lati bi nga xam ne baarak naa barkel nañ fiha fafale muy Sham muy Palestine wa kuku naa nekkoon nañ aalimina di way di way xam bi kulli seen ci lépp lëf wa min ash-shayatin yent yàlla suleymaan day wax ak jinne yi di jàpp seytaane yi di leen mbugal di wax ak picc yi lañ wax mu dégg ko loolu moo tax nam xale ñëw ñëw si ci kanam suratu nam li ba mu ñëwee ba ci kër xorandoom gi mu dégg xorandoom bu mag waa gi naan dugg leen ci pax yi balaa Suleymaan joggi seen ko wax xarem bi dégg nga Suleymaan daal di ko tontu ne ko xanaa da nga yaakaar ni ñun dof lan wala amuñu yërmande ba ñuy joggi seen ko ngeen di dee mu ne déet yenent bi waxuma loolu dama ne waxum laa yashurun fekk ñoom yëguñu ko laa wax ndax ñun ni ñu gàtteeg ni ñu tuutee yow nit man ngaa jaar ci sama kaw ma dee te doo ko yëg ndax man melentaan dong la noonu la daan waxantee ak yooyu bu picc sabee mu xam lu muy wax moo taxit bu jógee picc yi jóg jinne yi jóg doomu aadama yi jóg yent yent yépp topp ko moom Suleymaan xarem bi lu nekk ci la woon day dem fu mu soxlaa ndox dal ana Moussa Njubure ne maa ngi mu fu ndox am mu xool ne fii de ndox mi soriwu fi jinne yi daal di ko génnee léegi ñu dal di jot ci ndox mi jinne yi dañ ko daan tabaxal di ko nappal ci géej gi dem labbi ay jën ci géej gi ñëwandil ko di ko nappal lu lu ak ak marjaan comme ni mu ñëw ci kanam dañ ko daan tëggal itam ay ay këll këlli weñ ak këlli eh, bant yokk ay bagaan yoo xam ne dafa xóot ba mel nii ay pax wala ba ba tol ni ay mbalka ndax njaboot gi mu amoon ci nit ñëg jinne yi di fa lekk moo tax ay bagaan yu mag la amoon comme ni mu xaare ñëw ci kanam wa jawaab kal jawaabi wa quduurin rasiyatin wa jifaanin kal jawaabi wa quduurin rasiyatin daanañ ko defal ay bergenne yoo xam ne yu dëgër la di ko yettal ay kël la yoo xam ne ñu ngi mel ni ay pax ngelaw li nag bu ko neexee mu ne ngelaw danoo bëgg suba ñu jëm ordon wala ñoo ngi jëm féniq muy liban mu fola fu ko neex mu ne ngelaw li ne ñu ne kon dajaloo leen mu toog ak nit ñeeg jinne yeeg picc yeeg yépp rek ngelaw ñëw naawe leen ca lawer yëkkati leen ba ca kaw ruxaa daaral ñu daal di àgg fu ñu jëm moo loolu alquran moom moo ñu ko waxal moo ne xuduwaa shahrun rawaawoo shahrun xëyam doxu weer la ngontam doxu weer la yàlla nag daal di ne moo taxit wala Souleymane ñëwal na Souleymane riixa ngelaw la asifatan muy aji rijji tajri day daw rek bi am rii ci ndigalam ilalaar di jëm ci suuf sa da tey suuf sa nga xam ne baarak na barkel nañ fiyaa foofale wakku naa nekk nañ aliman di way xam bi kulli shay wa min ash-shayatin nekk na ci sheytaan yeeg jinne yi man yaxuusuuna ñuy xuus la wa ñeel ko wa yaamaluun danañu def amalan jëf doona dalika ju bokk la xuus di ko nappal loolu loolu ak marjaan bokk naa nekk na ñun yàlla nag xaafisin ñun ñoo wattu Suleymaan ak nit ña lawum ñeel leen waaye bu ñu leen wattu wutoon kon jinne moo ëpp doole nit mu ne wa ba na nga nettali nit ñi xisatu yonent yàlla ayub am na ay israiliyaat téere yi dañ ci xisa xisa yu doy waar yoo xam ne yooyu yëpp nekkut li tax nekkul moo di ne ismatul ambiya moom mooy bañ loolu boo jàngee tawxiid da nga xam ne ambiyaaw yi am na loo xam ne yelul ci seen daraja ndax dañ ne daa nañ ayo ba daa wopp ràgg goo xam ne gu métti la ba saxee ba léegi buñ ko yóbboo ci ker gi sax yi ci naaj wi pour sax yi dee yi dañ koy wat yóbbu ci ker gi ba muy onk nag di binni di jooy di ñaan boromam loolu lañ nettali ci ayo ba waaye yooyu yëpp ay israiliyaat la ayo ba jaamu yàlla la bu yiw yàlla yónni ko yàlla nattu na ko ci alalam mu ñàkk ko mu natt ko ci njabotam ñu dé ay doomam dé yalla li lepp taxul mu wéddi mu mel na meloon yalla dal di ko dal di ko nattu nak ci yaramam mu feebar ba nga bu joggé bëgg julil yalla sax da joggi day jafé mu dal di onko, dal di onko dal di binni dal di ne yalla, ah man dé tay lor gi laal na ma té yow nag xamna ya ne yaa daldi dal di ñaan bam ñaané feebaram bu metti won nak té yag jabar ji sax demoon na bu xëyee jabar ji du dem fenn day toog ci wetam rek mu di ko defloo aka aka bàyyiloo benn bés mu yónni jabar ji xëy na garab la ko yónni jabar ji yàgg fa mu fàtte ko ndax may tudd feebar bi mu daal di ne anamu ñu ne moom day nekku fi mu ne bu ñëwee dinaa ko jaw caw téeméeri yar ba mu ñibbisee ne ko foo demoon mu ne ah du yaa ma yónni woon nangama ki nangam mu ne a ah wax nga dëgg yàlla ne ko yow maa la tànn ab yónent nga doo fen te géñoon nga ne da ko door téeméeri yar kon jëlal sa yu matt nga bàcc ko ko benn yoon muy téeméeri yar <laughs> kooku moo di ba léegi nag malaaka dal di wàcce dal di nekko ko këddal sa tànk ci suuf ndox dana ci génn ndox mi maadinul kibrit la mu daal di ci ndox mi génn ci mu ne ko naanal te sangu da nga dal di wér maadinul kibrit ndox la muy bale ci suuf te bu balee day day tàng am na Maroc boo demee ci fu ñu naan Mawla Yaqub ndox maa ngay jóge ci biir xeer yi dafa tàng jër ba day saxar doo ci mën sax dugg te ndox ma dafa saf xorom dañ ciy sangu day dindi ay rhumatisme di dindi ay feebar yu bare bare bari américains yi dem nañ fa analyser ko seet ko xam nañ ne jàngoro yu bari lay génnee ndax mu ngi mu ngi bàyyi ko ci maadunil kibrit kon ndoxam si teeg rhumatisme ak sedd ak siteeg yooyu la gën a man ak dermatologie mooy feebar boo xam ne ci deru yaram la nekk nit ku yokk toog deru yi ak yu demee ni ki noonu ak deru yi def ay góom di tooy ak yooyu yëpp da koy faj ndax kibrid la maadin boobu nag moo génn ñu ne ko na ci naan te nga sangu ci moom moo lay faj de loolu moo di xisatu ayuba alayhi salaatu wasalaam te nga xam ne ñëpp ñëpp nattu mooy yonente yi ak saalixuuna yi ña ca topp ña ca topp ku gën a métti na nattu moo nga xam ne yow yàlla moo la gën a tànn ndem gëm nga yàlla mu ne waa ayuba yow Muhammad na nga jàngatal nit ñi xisaa naa daa ba mu wooye rab boo boroom ne anii man massa ni laal na ma durru ak lor waa ante arhamur rahimin yaa gën a yërëm ku yërëm de fa sajab naa ñu dal di wuyu loo ñeel ko fa kashaf naa ñu uññi maa bii la nekkoon ci moom min durrin ci feebar ak lor de waa tey naaw ñu jox ko àla hoo ñoñam wa seen maaw ñoom muy yërmande mi ne dinaa bàyyeeko fa ñun wa dikra mu dig waar lil abidina ñeel ñi nga xam ne ñooy jaamu yàlla de wa ismail na nga jàngat solo yonent Yàlla ismail muy doomu ibrahim mook baayam ñoo tabaxoon kaaba ga mu ñoom ñoo sañc màkk de wa idris idris kooku moo njëkk jël xalimba ba teg ci kayit bind de wa zalkifli ak zalkifli zalkifli benn waay la woon ci bokk ci bani israil ku xawoon a topp ba kanam la ku sàgg noonu la lool ci mbirum alal mbirum ñak jaamu rawati na ci mbirum jigen mom nak am jenn jigen, jo xam da ka top rek top ndaw si be be ndaw si nangul ko laaj ko nak ci xaliss dara mu jël xaliss ba jox ko ñu wéet nak ñom ñaar ba ñu wété dema dem ba fo xamné né nañ wéet nañ fa ndaw si di lox juróom ben fukki dinar la ko joxoon ndaw si di lox di joy mu ne ko loy lox ak loy joy dama la forcer mu ne dedet mu ne dama la fayut mu ne déedéet mu ne ko waaw looy jooy nag mu ne damaa xam ne yaakaar nañ ne wéet nañ waaye wéetuñu ndax yàllaa ngi nii ñetteel ñu loolu moom lay jooy ma tidde de it jëf jii ma nar a def nii ñàkk ma ci duggal waaye nekkutoon sama sama jikko de moo tax fokk ma ma jooy ci loolu de mu daal di ne bëreet dal di jóg ne ko may naa la juróom benn fukki dinaar ya léegi man dootuma mooy yàlla mukk mu dellu gannaaw dal di tuub nag ba yàlla yónni ko kooku moo di dal kifli yooyu yàlla di wax naan wa ismaila wa idrisa wa dal kifli kulun képp ci ñoom min assabirin loolu moo tax aarifoona yi di wax naan maasiyatun tuurisu zullan xayru wa taatun tuurisu kibran charru moo yàlla goo xam ne boo fa joge ba dana tiital borom ba mu dellu ci yàlla lool ba tuub loolu moo gën fuuf topp yàlla goo xam ne da lay ba nga yaakaar ne yow dara wala def nga lu nekk de kulun képp ci ñii mina saabirina bokk na ci way mu ñëde waat xel naam dugal nañ leen fi rahmatinaa ci suñu yërmande innahum ñoom mina saalihin bokk nañ ci way wi de wa daanuuni mu ne na nga jàngat boroom jën wa mooy yonti yàlla yoonu sa yàlla nga ko yónni woon ca dëkk yooyu ñu naan nin wa wala ko yàlla yónni woon yoonu sa nag xol bi xat mu woote woote woote woote ñu weddi ko mu daldi di mer ndal ni man bana len woowatuma len ma ngi ni di gaday yunus dafa baax ba yonent bi neena la tufaddiluni ala yunus ibn mata yunus ibn mata ya yonent bi neena bu rek bu kenn wax ne mako gënde ki ñu doon ne moko gën naam ndax ak baxam gën ko tax mu wax lolu nga limu ko gën ba bax ma tax mu ne gënuma ko de legi mu ne ma ngi ndax ñii woo naa leen bañ nañ maa topp léegi man maa ngi dem ba deey ci àll bi rek ndax sama mission am naa échec loolu metti na ma mu ne day gàddaay te kenn digalu ko gàddaay mu génn dox ba ñëw ci géej gi gaal gi teer nit ñu dugg mu dugg ba ñu duggee di laaj pay ñu ne kii ab yonent la kenn du ko laaj pay fayeekuwuñ ko ba ñu demee ba ci digg géej ga ñu ne gaal gi kat attanut li mu yëpp léegi lenn rek mooy am mënatunoo dellu ci wàll wële mënunoo dellu ci wàll wee fokk rek gaal gi dana suux bu ñu wàññiwut ñu ne nag buñ ñu kenn nit rek amaan na ñu ci dana ñëw sawe ñu ne mojjaa anakaan la ñuy wàññi ñu ne dañuy wantale rek benn waaye ne lii sax bu ko dalal rek jaam buy dawab sangam moo ci nekk ku def luñ ko digalul moo ci nekk ñu ne nañu wantale ñu sànni bante yi bante bi daal yoonu sa ñu ne kii yonente la waxuma duñ ko sànni waaye du def lu neexul yàlla ñu wantalewaat bant bi dalaat ci yoonu sa ñu ne ah doy na waar ñu defaat ko mu dal ci yoonu sa yoonu sa eey xam ngeen lu xew man mi maa gàddaay daw te sama borom digaluma ko man mii maa tooñ sama borom kon man la balaa ñëppay dee nag man kenn ma dee ndax sama mission yàqu na ba pare ndax li tëb rek ne cum mbux ci géej gi wenn jën daw rek ne ko dëndëx wan na ko daw nag dawa dawa dawa dawa dawa ba ca lëggam géej ga mu yónni yunu sa nag boole na lëndëm ak biiru jën wi lëndëm ak biir géej gi ak lëndëm ak guddi gi mu daal dina laa ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adalimin woona yàlla ci ñetti lëndëm ya wa naada fi dulimaati talaati foofa la wootee daal di kenn du buur lu may yàlla yow mi yaa sell man tooñ man mi gàddaay te kenn kenn digalu ma ko jën wa biir bi daal di metti biir bi daal di ne jël jël jël di metti mu walbatiku xalangu xalangu bir bi seddul mu daal di daw génn ci lëgg ma dawa dawa daw ba ca tefes ga mu daal di ko gëq daal di ko wëccu mu daldi di daanu ca tefes ga moom it ab biiram daal di sedd moo daal di am mu daal di am jàmm yàlla daal di yebal genn garabu naaje mu sax ci wet ka wetam daal di comme niñ ko nar a jàngee ci saafaat shajara min yaqtin mu law ba wër ko gis nga xobu naaje e, kawar yi mu nekk yi mu am yu ñaas yi moo tax weñ yi ñemewu weñ ñemewu ko du dal ci moom ndax yaram bi tàmbali woon naa ñor di mokk di ñor ndax euh, wan na ak mbàqu mbàqu jën wi ni mu tàngee woon te léegi bu ñu bàyyee bu ko weñ yi dalee day daal di saxe dañ koy lekk daal di ci def ay sax mu saxe te kon yaram wi yàqu mu dee yàlla saxal fa genn naaje naaje ga law ba wër ko léegi nag na mu ko wannee woon daanaka ay yaxam dafa mel ni yu mokk mënatul dem mu tëdd mu tëdd naaje gi daal di law ci kawam mu tëdd fa nag ay fan ba nga xam ne yaram wa léegi commencé na dëgër nag mu daal di jóg daal di faxasu delluwaat ca dëkk ba waa nit ñi nag am ñu ko topp moo tax yàlla ne amul benn xeet bu seen yeneen ma sa dem lu mooy dañ leen a lu mooy xaw mu yunusa ñoom ba ñu gëmee fa nafa imaanuha mun a ilaa xaw mu yunusa loolay nett li ci moom moo tax mu ne ba gisee yàlla tuddee ko boroom jën wa ki ñu doon jàngal mu ne yàlla yàlla mu amut place mu ne lu tax amut place xoolal yàllaa ngi woo yonent yàlla muhammad deyaaleeg moom ca kaw asamaane juróom-ñaar ma ngi woo yunusa deyaaleeg moom ci mbàquk jën wa te da lay wóor ne yunusa bu muy woo yàlla ci mbàquk jën wi ma ngi dajeeg ma ngi janoog moom ndax alquran xam nga ne moos alquran du bindaat aw yàq de ke illaa anta la wax kenn du buur lu may yow boobu ma ngi jàkkaarloog boromam ci biir jën wi moo tax mu ne allazi naaja wa masjidu wal huutu mooy ki nga xam ne ma nga doon deyaale yàlla ci te jàkkam biiru jën wala woon de yonent yàlla Moussa ma ngi ko woon ci kaw suuf ci turu Sinaay foofa la ko deyaaleeg moom wax ko la mu ko wax Yunusa ca lëggum géej ga wax ko la mu ko wax Seydina Muhammadin ca kaw asamaan yi juróom-ñaar mu wax ko la mu ko wax dafay tekki ne rek yàlla moom wa fi samaay ilahun wa fi lardi ilahun mooy buur fu nekk fu nekk mooy yàlla moo nekk fu nekk rek de moo daj lépp moo daj kapp lépp rek moom borom bi tabaraka wa taala moo tax mu ne idaaba ba mu demee moom yunusa mu gaadiban mu yaa ji mer merante ak boromam fa dann mu jortu ne an la naqdira mënatuñoo am kattan alayhi ci moom fa naadaa waaye ban ko jàppee woote na fi dalimaati ci yetti lëndëm ya an mu ne eey laa ilaa dir benn buur ilaa anta lu mooy yow subhanaka tur na ma sak sella inni man kuntu nekk naa min a daalimina ci way tooñi de fa sajab naa ñu woyuloo ñeel ko wana jenaaw ñu musal ko minal xam xammi ca jàqare ja wa kadalika naka noonu nun ji la ñuy musalee almuminin ñëpp ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla de wa zakariya mu ne jàngatal yonent yàlla zakariya naka mu ñëwe woon ci sooratu Maryam bi mu bëggee doom te moo yaroon Mariama is naa daa waxtu mu wooye rabboo boroom ni rabbi yàlla laa tadar nii yàlla bul bàyyi ma fardan may aji wéet waante yow xeyrul waarisiina yaay ngeen ji way way doon nañu de noonu loolu moo doon ñaan ak Zakariya ci doom de fa sajab naa ñu daal di woyu la ñeel ko wa am naa ñu may la ñeel ko Yaxya wa aslax naa lahu ñu defaral ko zawja wa jabaram innahum ñoom kaanu nekkoon nañ yu saari woona daan njëkkalante fil xayraat ci def lu baax de wa yad'uuna naa daanañu ñaan raxaban ngir waraa ba nag ragal wa kaanu nekk nañ xaashiina di way toroxlu danaa ñeel ñu de walati na nga jàngat ki nga xam ne ahsanat ñoŋaloon na farja pm mooy mariam fa nafax naa ñu wal fiyaa ci moom biru min ruuxinaa suñu ruux gi wa jaal naaha ñu mu jël ko moom mariam wabnaa ak doom ja isa ayatan ñuy kawteef lil alamin ñeel bindeef yi de inna haasihi lii mu yónente yi ak ñi ma yónni woon ci ñoom ñoom ñëpp ummatukum mooy seenu xeet ummatan xeet la waaye dat wenn la waana faabuduni kon jaamu leen ma waaye wataqattaw dagg nañ amrahum seen mbir baynum seen diggante ko loon képp rajiun way dellu si lañ ilayna jëm ci ñun fa man yaamal ko def na mina saalihaati jëf ju yiw woowate moom ba mu koy def muminun aji gëm la mu yàlla falaa kufraana detig weddi li saa yi ci jëmam ja way naa ñun yàlla kaatiboon way bind lañ la wa ñeel ko lool de wa xaraamun xaraam na ala qaryatin cib dëkk alak naa bu ñu alak annahum ñoom laar joon duñ dellu si de xataa ida futti at xanaa ba ubbeef yaa joojoog ma jooja waxum te ñoom yéen si loon ñu ngay génn min ku li aadamin ci bépp bépp de waxun ne yaa joojoog maa jooja foofu dañuy ñëw daf ne ñun xas alak dee suul nañ leen duñu dellu si mukk mu nekk xanaa bu ba ta yaa jojoog maa jojo di dellu si di jóge ci bàmmeel bu nekk ñooñu itam musil xarnay nii mooy ki nga xam ne moo defante woon ak ñoom ñooñu nag dee nañ foofa ci saddu ba te ñoom duñ dellu si lu mooy bés penc de moo tax ibnu abbas day jàng wahum min kulli jadasin ci bépp bàmmeel ñu génn ci bépp bàmmeel de waqtaraba jege na alwaadu del ba alxaqu buy dëgg fa isa ye ci betteel shaaxisatun aji buqeeku la absaaru la si na bati ñi nga xam ne kafaru dinañ de yaawele naa ñu nga naan toskare ñeel nañu xat kun naa nekkoon nañ si xaflatin ci càggante minada ci lii bal la fi nekk kun naa nekk nañ daali mi na di way tooñ de innakum yéen wa ma taabuduuna li ngeen di jaamu yéen yéefar yi min dooni laay duut yàlla lépp حسب جانمتم سفر لا وانتم يين واردون ويرون يين لاحة سفر لو كان بنيكون هؤلاء خرم يي آليات دي الله ما وردوها كون دون جوك سفر دي وآي وكلون كيب خالدون ويسخلين في هاتي سفر لو منيالين في هاتي سفر زفيرون أي حجات وهم يوم لا يسمون دون جيغ في هاتي موم دي إن اللي جننا كنين قبل سبقت جيتونا لو منيالين من هاتي نيون الحسنان جيك موين يغمون يالله ulaayika ñooñu an ha ca safara mu baaduna ñu ñu sorel lañ ko de laa yasmauna du ñu dégg hasisaha rirum safara sax duñ ko dégg waxum ñoom fi mashtaat ñu nga nekk ci lépp lu foytu na ko anfusum seen bakkan xaalidina way sax lañ ca dee laa yasunum du jàqaloo leen mukk alfasaxu tiit ma alak par mu daay ji wa tatalaqaahum dana dajeeg ñoom almalaikatu malaaka ya naa leen haasa lii yow mukk mooy seen bis bi nga xam kuntum nekkoon ngeen tuwaadoona defi dal leen ko ak leen ko tëkkoo de yow ma nattu yi taxaj sama asamaan ka tayyi sijli ni ki taxañëpp téere bi lil kitaab bi ci téere bi de sijlu ak kitaab mutaraadifaat la a sijlu a saxifatu moo di téere bi nga xam ne dañ koy bind de kitaab it moo di téere de kon mu ngi mel ni atfu bayaan wala badal de kama badana naka ñu naka ñu njëkkee woon awala xalqin njël be nag bindee fi nuidoo lañ koy delloo de waadan dëlal la alayna bu ñu war innaa ñun yàlla kun na nekk nañ faayi leen di way def de wala xër katam bindoo nañ fi zubóori ci téere min baadi dikri غنال القرآن جي بندو ننچنے أن الأرض نكسوف سي يرسو آدنا دونك ألك عبادية سما جامي صالحون جدي ويودي لولا منك تيري جكيا منك چال القرآن يتم دي إن في هذا نكن نكن چلي لبلاغن أب كميني كلا أجت للا لقوم نيال نيجي قمنا عبدين وي جامو لنيو سين برم دي وما أرسلناك مزن لا يوني إلا رحمة لمي سغيون انت نكا يرمان دي للعالمين يلبين دي في دي قل وخلني إدما يوحا نكا ديفنا وايو إليه ميت من أنما إلهكم نكسين يلا إله يلا لا واحد بين لا فهل أنتم دعيين مسلمون ويوم تنين فإن تولوا بنيددو فقلوا هل من دي آذنتكم قملنا لن على سرائن تيمو وإن أدري دين ما يقمنك أقريب أجي جاكي لبس بنش أم بعيد ولا أجي سريلا ما توعدون دي في التكورين كده إنه يلا يعلم موقم الجارة لفين min al qawli ci wax wa yaalamu yàlla moo xam maa taktumuuna lu da ngeen nëbb ko de wa in adri déet may xam nag ne laallahu ndax li yàlla ne xamuñ ndax alaaxira jege naam jegewut man xaw ma na ndax ndax loolu fitnatu nattu la lakum ñeel leen wa mataawun te di xewal ilaa xiinin jëm ci jeex ak seen dig de xaala mu ne rabbi yàlla waxkum atteel bilàq ci dëgg wa rabbuna suñu borom arrahmaanu mooy borom yërmande almustahaanu mooy ku ñuy dimbandikoo alaamaa ci lépp li yoqal li nga xam ne tasrifuuna da ngeen melal ko ci seen lamin